nataal ñeent fukk yéesu wax na ay xaritam yéenay doon samay seede bu fekkee yéesu doon na sa xarit war nga seede ci turam ci ñépp ndaxte danga bëgg yéesu war nga def lépp lu ko neex ndaxte mbëggeelu yéesu feesal na sa xol te dinga leen bëgg a xamal lu tax mu fees sa xol ak mbégte bi nga am ci loolu du lu yomb doon seede yéesu ci kër gu mu juddoo ay waajuram nanguluñ ko woon lépp ba tax bunt xataloon nañ ko moom xeeboon nañ ko te daawuñ ko déglu te yéesu nee na ay xaritam duñ leen gën a fay daal que moom xëj na yaa ngi foog ne danga wéet yow rekk la waaye xamal ne yeesu mu ngeeg yow te xëj na nit ñaa ngi lay sewal ndaxte li nga doon ci gaay kirist yi nga bokk yokkal sa bopp doole ndax yéesu Kirist mu ngeeg yow bés bu nekk ba faw bi malaaka yi wàccee ci sàmmkat yi doon wottu seeni jur ci Betleyem da leen ne bu leen am lu ngeen di tiit ndaxte xibaar bu baax laa leen di jottali bi doon mbég ci askan wi wépp tey jii musalkat juddul na leen muy kirist te xibaar bu baax bi jóge ci kirist biy boroom ak musalkatu àdduna si moo tax ñun gaay Christ yi dañuy am mbég di ko yëgle